Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. moom Assane Diouf cest xam nga man maa njëkk def live wala même sama chaîne YouTube di ko gis non da nga dem si di ko gis may wax di wax ni euh, ma ne Assane li muy wax ni muy defee du noonu li muy waxee du noonu man ànd ci saaga Assane Diouf te bi ñu ko gisee ci bi waxtaan nañ mu nekk nit bu baax ñu waxtaan ma ak moom man a ko grand saaga yi xam nga rek. Baye Sall yi te Assane Diouf dina leen wax ko yóbbu bu ci Sénégal yi jugul Macky Sall dina ko sàmba ci wax lu leer bu ngeen bàyyi ko xel te ñoom mënuñu ne nag koy njëkk bàyyi dañ ko bàyyi parce que Assane dafa am ko encore fi ñu ko yóbbu noonu ko liggéey dafa def six ko ko ni la war a enquête mais dañu moom ak imam bi ma lay wax nii imam Habib ñoo bokk même chambre Habib Touré kooku ñu jiñ terroriste tëj ko foofu fi ñuy def terroriste lañu tëj Assane Diouf loolu aussi sénégalais war nañ ci jàpp te pour man combat la pour ñu libérer Assane Diouf parce que gis ngeen li fi xew lu gën a garaaw Assane Diouf waxuma la saaga de mais saagante moo am Sénégal saagante xam nga saaga ak saagante bokkul parce que ñu dafa saaga mais ñi dañoo saagante donte nag saaga moom kenn du ko cautionné waaw déjà xam nga euh, damay wax ni damay expliquer ma ne déjà mën naa ko doon demander sa question après ma gis sa waay quoi c'est-à-dire sénégalais yu bëri dañuy wax Karim état de santé état de santé c'est-à-dire sama feebar man dama wax wax naa ko sànq quoi ma ne umpul benn sénégalais yàlla def na yàlla moo def sénégalais yëg ko ñëpp ko yëg mais dama ni sama feebar man Sénégal moo gën a feebar man man su fekkee quatre opération la Sénégal am na quatre cent quatre vingt ci mi ci wàllu fu ne ngi koy jëmal ñu ngi koy caxat caxatee ci suuf si Sénégal dañu koy opéré di joxote te ñuy opéré Sénégal opéré woon pour sauver ko man ñu ma opéré pour sauver moom dañuy opéré pour jël ndawal li ci biir dundee ko booboo gën a grave c'est-à-dire man dama ni man Abdou Karim ma personne importe peu li ma li am solo pour man mooy xeexal Sénégal sama santé nag lu ma may rek dinaa ko def daf ma may ma mën a ñëw toog fii def ko moo tax ma def ko su ma mayee leneen encore dama koy def su ma sentiree ni mënu ma dem ma toog ba mën dem ma dem mais ma ni pousse pousse su ma ci doon teg pour ñëw damay ñëw pousse pousse su ma ci doon teg pour dem manifestation damay dem manifester ba keroog may xam ne man fii laa mën a yem mais fekk yéen a ngi may déglu parce que mën naa ko mën a ko def parce que ma am médecin aussi boo xam ne ma koy laaj bu may wax ndax mën naa wala mënul non je pense que fii problème parole affaire prison dépendul ci ay parole loolu moom yàgg naa ne biti la fanaan injustice bi nekk Sénégal ñëpp gis nañ ko xam nga du parole man comme ma demoon di waaye ci kees ci kees sooy li mu wax ay baatu fen fen du saaga fen du saaga wax lu amul rek wax loo xam du dëgg loolu yaakaar naa ñun ci la ñuy xëy di compte <laughs> ngeen baal ma quoi homme politique ñun ak ñoom depuis 1960 li ñuy wax amul te defuñ ko respecté wuñ Sénégal loolu du saaga donc loolu moom moo dellusiwaat ne ko kàddu bu risqué. kàddu bu risqué mosuma ko wax lenn wax mooy erreur te baalu naa Sénégalais yi te baalu ma leen parce dama dem prison wala dama nekk prison de mais dama baalu parce que aw ma droit di wax de ne dañu war a dóor policier bi dañ ko war a simi aw ma droit mais man dama juum dama koy wax fii ci kanamu Sénégal dama juum ci kàddu yooyu mënoon naa ñàkk mënoon naa wax ba pare te du wax loolu mais pour tëj ma xam naa ne su loolu nañu ma tëjaat ci leneen parce mais jàpp naa ni incha allahu rabi ak leen na jël incha allah man kenn doonu ma jàpp ci ay kàddu parce que ñëpp gis nañ fi xew quoi gis ko fii jàpp Assane Diouf bàyyi gis nga tey ñu ngi wax kaw ay yaa ngi koy dégg ay politique fii Moussa Cissé Lo yaa xam Mbaye ak Farba Ngom ak yaa ngi dégg lu nekk lu nekk te loolu yëpp gis ngeen tey ni ngi mel ni tey dafa am ñoo xam ne ñoom ñoom ñoom la yoon di ñoom la fi yoon nekkal ñii yoon nekkal lu leen fi loolu loolu lu am la président Macky Sall bi loolu lu ko war te am na pression du moom moo jékki-jékki di jàkka yi c'est pas une pression dañu wante dëgg quoi moo tax mu tëj te tëj jàkka yi lu war la naa ko sànq ma ne la jàkka kenn du ko tëj yéen ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa ne nit ñaan mooy ngànnaay président bi taxaw nous sommes en guerre ba na yéen seen ngànnaay teg leen tëj la ñu wax dafa ne ñaan mooy ngànnaayu jullit léegi nag suñu président taxaw ni sama gars yi yéen yéen a ngi ci guerre mais seen ngànnaay tëj naa te ñun jàkka yi la ñuy ñaane il a compris Macky Sall nit la sama waa day comprendre day xam ne day def ay erreur moom après day comprendre saa yi ñun du ñu noonu Macky Sall Macky bu ñu déglu woon rek bu baax a baax a baax am na erreur yu bëri yoo xam du ci dugg na lu bëri loo xam dina ko dimbali quoi parce que ñun soxlawuñu pouvoir xëccoowuñu assemblée xëccoowuñu dara lu dul Sénégal nekk dëkk bu mucc ayib loolu rek moo ñu tax a jóg Pam Sassou ma leeral ko si euh, Assane Diouf dafa doon kaas ko ba noppi man aussi ma doon wax ñu tëj ñu yi ñu tëj ma ba noppi après di ci jàkkee loolu moo xamal laa si jàkkee dama jàngat ni Sénégal Macky mu mi ngi ñuy déglu mi ngi ñuy déglu quoi peut être xëy na peut être orgueil la wala entourage xëy na ñooy camoufler mais mi ngi ñuy déglu quoi te mi ngi topp li ñu koy sant kon du ñu mus a arrêté wax parce que loolu rek moo waral suñu compagnie suñu cadre bu jugee ba siiw bu ñëpp dégg ko président mën ko dégg di ko topp rek alhamdulilah donc on s'arrêtera jamais loolu la léegi nag euh, wàllu imam Habib Touré apologie terrorisme yow xam nga li may wax maa yow ànd nañ si xeex yooyu apologie terrorisme dañ koy topp waaw parce que mooy li mu wax ni l'islam dafa am législation boppam li mu wax ni l'islam du diine bu ñuy boot day bootante dañu loolu suñu combat man li ma gëm mooy alxuraan moo war a nekk ci kaw Sénégal man damaa gëm ni c'est pas normal ñoom président boo xamante ni il est chrétien muy wàcc ay constitution te bible lu nekk fi c'est pas normal ñoom président boo xamante ni il est musulman tudd Macky Sall wala mu tudd Ousmane Sonko wala wala Idrissa Seck muy waat ci leneen lu dul alxuraan c' est pas normal c' que nax bi ñu nëkk nax mooy loolu c' est pas normal nga nekk musulman te doo ci alxuraan bi képp ku bëgg toog si réew mi da nga war di waat ci alxuraan dañu war a fexe ba constitution Sénégal méngoo ak suñu diine ak suñuy valeur suñu combat loolu la. loolu moom loolu nag imam bi nag loolu doon discours loolu moom wax mooy li ñu imam Ali Badara loolu lañ jàppee euh, Mamadou Mamadou euh, Camara ko deux fois mi ngi foofu noonu toog tànk yi ñuy moom feebaru foie am trop donc loolu la léegi nag malheureusement booy wax des musulmans comme yow ñi woote seen bopp jullit ñoom ñooy jug pour xeex la xeexuñ na parce que dañ la contrôler mais dañoo xamut li ngay wax comprendre ni islam dafa programme politique islam politique la dafa am système am boo xam te ni da ko teg ci wàllu justice am ci walu lépp islam islam dafa am loolu tubaab bi loolu lañ copier teg ko dindi lépp luy diine loolu mooy laïcité mooy la ñun dañ koy xeex ñun suñu xeex loolu kese la pour sekkee valeur donc kon moo xam catholique nga moo xam musulman nga boo sàgganee ba yow tey sa diine ñu jël ko def mu nekk deuxième position bi c'est pas normal parce que ngëm-ngëm mooy jiitu moom la à chaque fois ne ngëm-ngëm mooy jiitu parce que gisuma kenn ku dee ñu ne boo dee dañ lay laaj sa bàmmeel quels sont les quatre points cardinaux quels sont yooyu noonu donc kon yàlla mënul bind yonentam yi jox leen ñu ne non nit ay yeneen nit xalaat ne léegi dañuy topp leneen dul yàlla yónni loolu combat yi suñu combat loolu la ko faj ñun loolu mooy suñu combat loolu kese mooy suñu combat. Badiane waaw Badiane grand Badiane dama la wax ni la homme d'affaires bu mag la ko bu mag boo xamante ni xaritu Abdoulaye Wade la doon indi ay bailleurs indi ay milliardaires fii ay milliardaires saoudiens ku nekk la doon indi fii. xam nga entre guillemets am na suñu détails yoo xam ne bëgguma ci sori mais li ma la bëgg wax mooy Badiane nañ ko jàppee parce que amoon na ay suuf yu ñu nangu. Badiane moomu jox na ma sax ay photos bëggoon naa ko indi benn sens mu naa ko wane quoi parce que may na ma ay photo ci kaso bi mais dama ko fekk ba ñu am insuffisance rénale ba ñu dañ ko yëkkati di teg te juge bi ñaari yoon na ko procureur defaat recours nañ ko téye bañ ko yëkkatee ko teg mënatul daal léegi man dama ne bajaan li mu def donte fekkee ni dafa def erreur na erreur am quoi parce que sept ans loolu ñu nangu sa bien yëpp mais doy na quoi après nañ bàyyi nit ki quoi en yooyu amul njariñ jàpp ni kenn warul dem kaso ku def ku def na ko sul noonu aussi dañ la war a teg kaso mais est-ce que tamit doyul ko ci kaso ba feebar ba nga yëkkatee ko loolu bokk na si cas Badiane ak cas Camara moom na ci li tax ma man su ma toogee yeneen semaine waxuma presse bi du ma du ma yóbbante te yóbbante àq la. waaw Adja loolu man je pense que wax naa si quoi am na détails yoo xam ne du ma sori daal xam nga wax naa si li ma wax rek mooy c'est-à-dire man dama am régime alimentaire dama am mu war a dundee sama médecin moom presque ne ma lii lii nga war a lekk waroo lekk lii waroo lekk lekk les conditions yi nekkee nii. Covid bi kaso yi dañ ko tëj kaso bi ni ñu ko tëjee loolu dafa tax benn lekk du dugg benn lekk du génn maanaam kaso même visite amul alors je suis obligé ma lekk lekku kaso bi te loolu méngoowul ak man sama régime léegi loolu nag moom woon nag di dem am ay malaise ci kaso bi te bi wax dëgg yàlla noo ko woowee sama jabar wax sama avocat taxaw nañ ci ma nga xamante ni ñoom am wax ñu waa ni ci dëgg pare taxaw nañ ci ba alhamdulilah dañ may bobien spécial dañoo yóbbu avion spécial Assane c'est-à-dire euh, loolu comme ni ma ko waxee Sénégal yi yëg nañ ko mais bëgguma tamit xam nga mel ni genre ay vanté wu yooyu xam nga dañ moom jox xaay yooyu c'est-à-dire man sama même sama mal à l'aise quoi sama wax si yooyu ko xam nga li ma mën a wax rek c'est très simple bi ma feebaree nekk ci tëdd principal ay kilifa ñëw nañ fa pour jàppale ma ci feebar bi seen image ak ni ñuy doxalee Sénégal ak seen koppar dalul sama xel moo tax jëluma ko Sénégalais yi nga xam ne yi ngay dégg diaspora ay Mati Trois mag ay ñoom Mbaye Dramé ak ñii ay nitu valeur ñoom Anta Entrepreneur ñii nii ñoom ñoo créé ay compte lici Sénégalais ñoo def juróomi dërëm ñaar dërëm jël mu yóbbu ma Allemagne ñoom ñoo ma faj ñoom ñoo ma faj donc loolu la quoi bëgguma woon laal xaalis politique bëgguma woon laal xaalis politique parce que politiciens yi doyul seen dara doyul seen dara doyul homme yi xam ñoo nekk ci pouvoir bi ak ñi xam yàgg nañ ci nekk ak ñi nga xam jot nañ màcc tàngalu buur doyul ma